yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxda sayidina mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel di dellu si waat ak yéen ci jotaay bu tedd bi nga xamante ni ñu ngi koy amal bi koor gi tàmbaleeg léegi àndoon ko ak sunu kilifa gu baax googu di Serigne Salih Mbacké mu jotoon ñu dikkal nag ci solo su weeru koor ak farata yi nga xamante ni moom la làmboo ak sunna yi ak yenn xamle yoo xamante ni jotoon nañu ko ci defal tey nag dañuy dellu si ànd ak yéen dugg ci jàngale yooyu nga xamante ni sëriñ bi jotoon na ko def tànn ci ay mbir yoo xamante ni mat naa leeral ni nga xamante ni sëriñ bi leeraloon nañu faratay koor leeral ñu sunna yi leeral ñu lenn ci nga xamante ni mooy faral di yàq koor euh, bi muy leeral yu yàq koor nag tuddoon na ci yenn yoo xamante ni bu yàqee koor dafay aajowoo ñu defar ko lu ci mel ne kafaara maanaam kafaara kan la war ak naka lañ koy defee kafaara nag li koy waral mooy ku dog ci bëccëgu weeru koor te tey ko mbaam mu jaxasoog soxnaam dog gi nag dafay nekk dog ci lekk mbaam mu nekk dog ci naan wala jaxasoog soxnaam wala mu def pexe ba man yu génn ci moom euh, kooku nag bu fekkente ni loolu dal na ko kafaara daf koy daal di war bu ko kafaara waree nag ni muy def mooy dafay woor euh, ñaari weer yu toftaloo wala mu goreel jaam walla mu leel juróom-benn fukki miskin buy leel juróom-benn fukki miskin daf leen di leel ci ñam boo xamante ni moom la ñuy dundee bu doon ci réew mi nga ne ci ceeb. te mu ko def mu def ko ci mudd mudd nag ku ko xamul mooy tolloo ak liibaru ceeb liibaru ceeb lay génne te bu koy génne dafay fexe bis bu set bu wooree mu génne benn libar bis bu set bu wooree mu génne benn liibar noonu la koy defee kon dafay am ñetti choix benn mooy mu woor juróom benn fukki fan mooy 60 jour ñaari weer wala mu leel juróom benn fukki miskin wala mu goreel jaam su dee dafay leel juróom benn fukki miskin yi nag buy fay dafay fay rek booleeg leel juróom benn fukki miskin yi kon noonu la koy defee kon kafaara ki mu war mooy ki dog ci bëccëgu weeru koor ci lekk wala naan wala jaxasoog soxnaam mbaa mën ñu génn ci moom su ko defee dafay kafaara woor fay li nga xamante ni moom la dogoon booleek leel juróom benn fukki miskin wala mu woor juróom benn fukki fan wala mu goreel jaam ñu dikkee ak yóbbal bi nga xamante ni mooy yóbbalu bis bi sëriñ bi dafa am ay dénkaan yoo xamante ni daf ko doon joxe mooy sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dénkaan yooyu nag doon loo xamante ni lu mën a jëriñ ab jullit la dénkaanub tay bi dañ cee tànn juróom-benn yoo xam ne sëriñ Tuubaa dafa ne képp kuy jullit bëgg na ko waaye ku ko bëgg war naa góorgóorlu def juróom-benn yi dana képp ku bëgg am jéggaluk yàlla sunu borom nay faral di jàng alxuraan ku bëgg am jéggaluk yàlla sunu borom nay faral di jàng alxuraan ku bëgg am sunu borom muccal ko ci mbugalum bàmmeel nay faral ji julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam def sallallahu ala muhammadin wala allahuma salli ala muhammadin su ko defee sax ci sunu borom dana ko muccal ci mbugalum bàmmeel ndax daraje yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu ci munta fàggoo amul ndax yonent bi ma waxoon ne wasiloo jaahi jaahi azimun inda bi lu ngeen sàkkoo ci sama daraje ci yàlla sunu borom di ngeen ko am ba ca topp sëriñ bi wax ne ku bëgg bërile ku bëgg bërile ba doo ñàkkati alal sëriñ ne li ngay am na nga koy jox yàlla yàlla nag jaamam ñi la am kon képp ku jox yàlla sunu borom ci jaami yàlla yi ngay tàmbalee rawatina ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru koor fexe ba dimbali ci ñi nga xamante ni danga leen a tane loolu boo ko defee sunu borom dana yokk sa am-am te dootoo ko ñàkkati mu ne ku bëgg am ay àndandoo képp koo xamante ni bëgg na am ay àndandoo dafay fexe nekk ci ak njub sëriñ bi nee na ak njub mooy yoon wi nga xamante ni ku ci jaar bu fekkente ni fekkoo ci kenn itam yàgg-yàgg nit ñi danañ la ci fekk si bu fekkee ñëw nga ci itam fekk ci ay nit ñooñu nga ci fekk dinañ mën doon say àndandoo képp koo xamante ni bëgg naa noppalu na wattandiku ci di fayantoo ndax kuy fayantoo moom du mucc benn yoon mu ne képp koo xamante ni bëgg naa noppalu bu muy tooñ waaye képp ku bëgg mucc itam bu muy nekk di fayantoo ku bëgg mucc rek bu mu tooñ ndax ku tooñ ku nekk danañ fayu ci yow waaye képp ku dëkk ci fayantoo itam doon noppalu kon loolu moom mooy doonoon yóbbalu bis bi ñu dikk ci naafila bis bi naafila bi nag dafay wax ne mooy naafila bi juróom-ñeenteelu fan képp koo xamante ni julli na ci ñeenti rakka te ñeenti rakka yooyu mu jàng ci benn rakka bu nekk faatixatul kitaab ak tabbat mu jàng ko ñetti yoon ak xul ahadun mu jàng ko benn yoon képp ku ko def sunu borom dana la jox yool bi nga xamante ni moom la dencal way muñ yi mu yool bu màgg képp koo xamante ni def na ko itam sunu borom dana ko bindal mu mel ne ku jàng téere yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci asamaan te itam dana ko bindal tuyaabay ku dund juróom-ñaar fukki at mooy juróom juróom-ñaar fukki at mooy 70 ans mu dund ko yoo xamante ni bis bu set bu xëyee dafa woor ba bëccëg yi taxaw di naafila ci guddi yi sunu borom dana ko defal yo yool boobee te bu ëllëgee itam ci yowmal xiyaam sunu borom dana ko fàggul bunti àjjana ya fu ko ca neex mu mën caa tabbi. yaa xayra سوى المداد أهلا وسهلا وترحيبا بلا